position bi ay année ñu gën leen see remarquer à sen taxaway taxaway bu am solo bo xamanteni def ngeen ko mais vous ne regrettez pas aujourd'hui vous êtes au pouvoir tay ji quelles sont les ambitions yi nga xamanteni priorité la pour askan parce que yeen en a ko diggoon askan wi ne une fois au pouvoir dinañ satisfaire ses propre besoin mais ñi gis ne y a de cela deux mois mais gisaguñu dara lo xamanteni projet bi wala le euh, gis nañ aussi ngeen lancer ben défi djub djubal djubanti vous l'avez souligné tout à l'heure est-ce que ambition yi tey ni est-ce que trahiwu len askan wi ambition yoyu nga xamni projet la mhm. projet mhm. vient du verbe projeter mhm. projeter moy dama mebet ou dem fi toll ci fi ba egg fii mu ngi mel na ma jógee Dakar ma projeté dem Matam ma ni bëreet eggaguma Tëngéej ñu ne ma waaw yow Matam nga waxoon kat ma ni leen yéen est xam ngeen luy projet projet mooy damay dox di dox ba ca egg fa à des étapes même PSE bi boo demee deux ans trois ans da nga koy évaluer rectifier avancer xoolaat projet non lay démé ba ba muy àgg. donc ñun ñu ngi ci lañu ñu doon xaare ndax yow ni nit bu ñëwé ciblé agriculture. parce que ñun autosuffisance alimentaire dama ko daan wax. dama ni bu amul ci réew. Mm-hmm. Mm-hmm. réew mënu ñu dem développement mënuñu dem développement c'est c'est important. président Macky Sall wax que depuis 2012 dem ba 2024. Mm-hmm. atteindre ko. l'apprentissage par l'échec. li tax mu échoué. war nañu mëna a jëriñ ñun effectivement parce que yen duñ pas tolérer parce que goulot d'étranglement bi nga mhm. la corruption la concussion l'achat de conscience pourquoi yow nekkuloo baykat mhm. ma jox la ay jiw mhm. nga dem di jaay intermédiaire mu indi ay problème ma dégagé 100 milliards 100 milliards veille, vingt pour ce pays waaw quatre-vingt yëpp dem dugg ci ay intermédiaire ak ay nit ñu nga xam ne c'est des politiciens mm-hmm. loolu boo ko mm-hmm. yaa ngi jëm ci li nga xam ni dafay dimbali mbay mm-hmm. te ñun kat nous ne sommes pas obnubilés par les choses xam nga cent milliards la ñu wax lañuy def ci mbay bi man gis naa mille six cent milliards bu nga xam ni am na une organisation bu ma ko proposé pour ñëw soqali mbay mi depuis quand depuis bi ñu jëlee pouvoir bi xanaa xamoo ni

Hmm. donc deux ans de autosuffisance alimentaire Quand il y a jël milliards. Hmm. y a ci 100 milliards ya. redistribution bi ba ba on impact a am. Hmm. pêche Il tout le monde l'a constaté. ak yeneen disparaître. lu ko licence de pêche d'une manière euh, abusive. wala d'une manière qu'il ne faut pas. nga xam ni laxas jaan ca biir daal am na ca yow maanaam chinois baa ngay napp waaye yow yaa moom gaal gi bu ko defee dafay mel na yow yaay napp waaye yow da nga jox chinois bi nga toog buy dox yooyu ñu remarqué ko parce que Sénégal lañ dëkk ñu fexe ba yooyu yëpp ñu fas yéene ko dakal xool contrat de pêche yi na mu war a demee ba nga xam ni suñu jeunes yi dinañu jëriñu ci géej gi loolu c'est une mesure forte si donc mbay ñëw na. Mhm. nap ñëw na. Mhm. mais buñu buñu buñu défé focus si ki bi ci autosuffisance bi déjà gis nañ fan yi premier ministre mi ngi def ay effort mais tey jii lu ngeen digalé won ak askan wi comme si que président Joma yëkkati woon na fi ay cadeau que ni dinañ jema wañi dundu bi mais ñi gis ki nga xamne modi premier ministre Dièye defoon fi ben sortie sortie bi contradictoire ak lu président waxoon est-ce que tey jii jarut tamit ñu xolaat besoin askan wi. mënuloo wañi dundu bi. Mhm dafa am ay contraintes. Mhm. liées au contexte. Mhm. lié à l'environnement, mhm. liées à ce que vous avez trouvé sur place. Donc vous connaissez que vous êtes conscient qu'il y a des réalités. Réalité yoyu. Moi, la fa waron ne. way ne fa Xam nga lima wax. Mi ngi mel na ma waron ñew yow fekk nga am niveau CM1 ma mën la yobbu CM2. Waaw ma ñëw fekk niveau ba nekku fa. Mhm. dama lay redoubler CM1 ba nga am effort ma yóbbu la CM2 loolu moo tax nga gis nit ñëw ñu ni réalité du pouvoir ñu ni déedéet. Mhm. la ñu fa bàyyi. Mhm. moo indi lii ndax dafa am lu fa bàyyi. il y a un bilan que nous ne connaissions pas. am na lu ñu fa fekk est-ce que defe nga ni bu fekkoon exploité nañu rapport yi nga xam ni dafa dem deux mille dix-neuf ba deux est-ce que ñun dinañ jël effort di exploité waat rapport yooyu di leen woo wala di seet. Mm-hmm. est-ce que ñoom ñi fi nekkoon seen rôle du woon loolu boo ñëwee nag fekk la ñu waroon def defuñu ko yow fokk nga def la ñu waroon def ba pare soo gaa àgg fa ngay wax looloo tax wàññi dund bi mënut a rek léegi ndax ñi ñu fi fekk dafa am lu ñu waroon def defuñu ko mm-hmm. boo ni woon oto bi mm-hmm. dina daw quatre-vingts à l'heure bu ko defee en une heure de temps mu egg Rufisque waaw nga ñëw fekk tali ba yàq nañ ko yàq-yàq ba nga xam ne oto bi au lieu mu daw quatre-vingts kilomètres à l'heure day daw vingt kilomètres wala trente kilomètres à l'heure hmm. kon da ngay diffuser da nga naan lii de waxoon naa dinaa egg tëngéej waaye heure bi ma waxoon damay egg tëngéej mënu ma ko egg tëngéej donc il faut que ma daw respecter kii bi bañ a yàq oto bi ba egg foofu Mhm. Non la mhm. aujourd'hui on ne peut pas diminuer le prix mhm. des denrées de première nécessité bien que nous ayons fait un effort de récupérer les si vous nga xam da doon euh, recrutement abusif yu nga euh, institution budgétivore il dinañ ko une manne financière mais ça demande du temps mais ça c'était une promesse promesse non tenue c'est ce que j'ai dit oui Demandez-le, promesse non tenue Moi, je suis un peu la que nga suis CM1 mais moi, je à mon niveau CM1 mm-hmm. est-ce que moi je suis responsable ka la à mon niveau CM1 mm-hmm. consolider ce niveau CM1 mais donc bu ma la yóbbuwul ñu ne déet dafa di woon dina nga yóbbu seen 2 déedéet. Mhm. pour bien agir il faut ma jël la ba nga am niveau bi. Mhm. ñi fi nekkoon ñoo deful li nga xam ni ay préalable yi war a permettre mhm. ñu wàññi dund bi immédiatement bu ñu defoon lañu ñu war a def ñun bu ñu ñëwee dund bi day wàññeeku immédiatement mais dañu salfaañe dañu jaxase dañu saboote dañu def ay recrutement yi nga xam ni warul dañu jël xaalis dugal ko fu ñu ko warul dugal dañu séddoo teer ya nañu séddoo teer ya noonu la ñu séddoo yeneen mbir yi nga xam ni waxoon naa ni ñuy doxee mm-hmm. bu ñu ñëwee ñun pour ñu wàññi dina jafe parce que ñoom CMSPP lañ daan doxal te ñun loolu dañ ko bëgg dindi. loolu dafa laaj temps pour nga dindi ko. mooy commission ngay doxee marché ngay doxee surfacturation ngay doxee. partage de privilèges et de prébende ngay doxee. léegi yow nga ñëw en deux mois il faut nga dindi loolu yëpp bare bi ñu yore. dañu war a bale habitude yooyu yëpp ak jikko yooyu yëpp. ak euh, li nga xam ne dafa daan euh, euh, dugg ci poosu nit te waroon dugg ci poosu état yëpp bu ko defee bu ñu régulariser loolu dinañ mën a taxaw wàññi dund bi te buñ

mais bu ngeen bu ngeen continuer si logique bi est-ce que tamit askan wi duñ yakarne non askan wi gëm nañu da ngeen len trahir da ngeen len lu ngeen len waxone ak lu ngeen. jëfee ah déedéet aspan yi dañ len di expliquer xam nga askan bi lan lay bañ man askan wi. moy mhm. la nga ma waxone defuloko mhm. expliquer woo ma. Mhm. man ñëw naa expliquer la waye ci sa doxin yow mi ma jité dina xol ndax li ma wax dëgg la wala du deug waye bu fekkee ni yow par exemple da nga ñëw. nga ni ma mënuma wàññi dund bi ba pare ngay yokk ay ministère di yokk ay kii dama naan la yow kat faale woo moo ma mais bu ma la gisee yow ngay doxin doxinu jub ak jubal waaye kon dinaa ni kii kat dafa jëm ci jubal jubbanti kon kii naa am ci moom confiance askan wi foofu lañ toll tey dafa am ñu nga xam ne ay euh, apprenti lañu ñu nga xam ni véritablement euh, dañu nekk ci euh, wutum koppar toog muy dox ak yooyu mm-hmm. moo tax ñuy tëb di wax ak di saaga ma ni leen bàyyi leen ko nag bi foog mu wequ mhm. dañ ko rendi waaye xanaa doo ko rendi ba pare jàpp ñeenti tànk yi rek doo ko yokk euh, doo wequ xanaa xamoo lii muy xew yëpp ngay dégg ñu ne arrêté nañu diw mhm. diw nangam nga yaakaar ni ñun yëg dañ ci dara mhm. ñun ñu ngay liggéey yëguñu ca dara procureur ba moo autosaisir def la muy def donc ñooñu ñoo am ñu li armé ay nit ñuy wax ñu yaakaar ni askan wi la déedéet man buma ma fi ci taxi lay laay dugg wala ci car yi. Hmm. buma duggé dina dégg askan wi li wax. non non askan wi wax nañ parce que man j'ai fait un reportage euh, semaine passée mais si ñu bari suñu mag yi ay ndaw lañ ay jeunes lañ yi nga xamante ni ay ouvrier lañ ay kat lañ mais ñom nañ ñu commencé fan yi lu ngeen commencé doxal ñoom te yeen waxu leen woon lii donc est-ce que tay ji du ngeen xoolaat tamit seen taxaway ak li ngeen yëkëti won comme cadeau teg ko si seen surtout ñu nekk ay ndaw ay jeunes yo xamante ni espoir lañ amone porté ko si seen ci seen projet gis na sa reportage. Mhm. Il y a eu une erreur. Mhm. Reportage du stade. Oui. Je l'ai vu. Comment Quelle est l'erreur Je l'ai dit. Il y a une campagne d'explication, heureusement, que nous ci télé bi tey. Mhm. c'est-à-dire au fond. bu fekkee ni yow. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre toog nañu. légui stade ba amoon désordre léegi ce n'est pas Bassirou mhm. qui dit il faut enlever les gens du stade mhm. c'est décentralisé à mhm. travers les mairies la mairie de Dakar ak ñeneen te bul fàtte ni ci biir maire yooyu dafa am ñu nga xam ne ànduñoo ñun bu ko euh, d'une manière intelligente dinañu agir gundu xataal jeune ba bu ñu gundu xataal jeune ñu ne ah gouvernement bi la tey Macky Sall kii Macky Sall nekk fi fekk na ay agissement la c'est en parfaite collaboration avec une partie de l'État mhm. qui n'est pas avec nous. Mhm. Moi, les maires, nous avons dit, de New York, de de Apple, de Jacques Tijani, de l'enforcer, de la police. Quoi que nous disions, nous avons dit, Lolo, voilà, nous avons fait une bonne législative, moi, c'est une idée personnelle, nous mhm. couplons avec euh, le euh, local, vous avez fait une belle élection, vous avez fait une année électorale. Nous avons fait une bonne élection, 5 ans, vous avez fait l'eau, nous avons une majorité confortable tax nous avons dañuy euh, peut-être maire mm-hmm. solution fond euh, confusion Ousmane Sonko Ousmane Sonko mm-hmm. est-ce que Ousmane Sonko la prérogative Ousmane Sonko mm-hmm. si Ousmane Sonko Ousmane premier ministre